Euh, Fama euh, di nuyu tout les téléspectateurs yooyu ñuy seetaan di leen souhaiter ajuma euh, mubarak très bien mi ngi noonu Maman Ndak euh, dina ñëw ci kanam tuuti bu ko defee ñu àddu ci suñu ab éphéméride très rapidement octobre li ñuy toll dañuy dellu ci atum 1974 mu nekkoon une convention signée à Dakar euh, qui remplace justement euh, celle portant création de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à ASECNA signée à Saint-Louis le 12 décembre 1955 boobu ba léegi ASECNA lan mooy évolué évolution bi am ci diggante at yooyu noonu ak traité yi ñu remplacé yi à leur niveau bokk na ci comme li nga wax ci affaire navigation surtout am na ci ak lu bari yoo xamante ne si waxtaane nañ ko tey it liggéey nañ ko jëmmal ko parce que bi ñuy nekk gën a nekk tout tànk dañ daan dégg suñu ay waajur yu bari ci euh, foofee lañu daal di jaar mu nekkoon loo xam ne bokkoon na ci mark bu bu Sénégal ASECNA ci euh, ouverture am waaye tamit ci li nga xamante ne si lu doon seen large jëm ci wàllu navigation bi comme ni nga ko waxee sànq rek évolution yi moom mënut a ñàkk ci seen biir. très bien mi ngi noonu ñu àddu ci atum 2012 au cours de la nuit euh, Cheikh Béthio Thioune sa euh, sëriñ di guide spirituel u Tiantakuni euh, il était en détention provisoire depuis le mois d'avril à la prison de Thiès dans l'affaire du double meurtre de Medinatou Salam est transféré à la prison de Rebeuss à Dakar et justement avant mhm. yàlla di jëlaat jaamam dëgg gi feeñ na ñu xam ne ni ndeysaan ku mënoon njaboot la ndaxte crime bu toll noonu am ci sa njaboot moo tax ñiy jiite mhm. ñi ñiy jiite ñoom dañu war a xam ne ni ab sas la Euh, moo nekk seen ginnaaw la fait ñu ne man taalibe diw la war naa tax lu bëreek lépp luy lu ñaaw wala ndogal bu ñaaw nga fexe ba moytu ko ba yàlla du la ko teg bu ko defee nga mën a sargal sa sëriñ ndaxte bu naree ñaaw ba ñaaw mhm. moom mooy ñëw di raw gàddu gi euh, daal di la ko dékkul noonu la demee sax xam nga bu fekkee ne nit danga ko yaakaar doyloo ko ak yar ak ndigal looloo tax ñu naan euh, ndigal jëfee mhm. ndigal jëfee mooy li nga xamante ne si ci yoonu siraatal mustaxim rek la la war a teg yoon wi nga xamante ne si moom la yàlla diglee mais euh, bu fekkee ne mbir dafa am mbooloo day ñëw ku ne ngay gis ku ne fekk si ak ku nekk ak li la indi day toll foo xamante ne si nit ki nga xamante ne si gëm-gëmam la am wala gëm-gëm moo ko indi wala yaakaar moo ko indi kookee dina mën a doxee ndigal mais ki nga xamante ne si euh, euh, mariirandoo moo ko indi wala xewit moo ko indi kooku mënoo ko canaliser loolooy am ci en général ci mbooloo moo tax day jafe trop nga mën a canaliser ñëpp ku ci nekk rek la nga gëm ak la nga yaakaar ak la nga doyloo rek moo la mën a dugal ci mbir te mbir nag la nga ci duggee rek nga cee génne ndaxte buyal ca saañ ba lay xeeñ ca saañ ba moo ne ci butéel bi mais boo xëy na nit ñi noonu lañ koy xamee asma yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana dañu koy ndar képp foofu ma comme on est un peu en retard mhm. euh, ñu dugg très rapidement ci rubrique yi ah, bu ko defee ñu euh, dalal soxna Fall ci wàllum tàggat yaram Stay at de Koto, ci la ñuy àddu le monde du sport a perdu un grand homme et le président Macky justement lui a rendu un vibrant hommage. ku ne ci réew mi rek doon nit ku baax ku ne ci réew mi doon sportif wala nga nekkoo sportif sax ba nga déggee Décès Koto di nga ko rendre hommage xam nga lu tax day nekk nit boo xamante ni si ku ci nekk mën nga koo seddee sa bopp. li nga séq ak moom relation yi mu am ak yow jàpp nga ni yow rek la ko séqal mhm. nit boo xamante ni si bu am sens d'écoute nit bu disponible di déglu ñëpp nit boo xam ne ci métier mu am ci ouverture large ñun mhm. jeune reporter yi koto mhm. dinañu déglu dina waxtaan ak yow dina la xelal dina la wan yoon bi ngay jaar même su fekkee ne mënul réagir ci kaw sax mais dina waxtaan yow ci loolu ci sa liggéey ci suuf loo xam ni mën na la amal njariñ nekkoon nit boo xamante ne si ku rendre le sport sénégalais en tant qu'international en tant que sélectionneur yore na fi équipe nationale A U23 yore na fi U20 équipe locale bu mujj bi ak U23 bi ñu boole rek moo dem ci tournoi Kosova bi ñu leen invité woon dem ba final ànd ak xale yi mu metti woon trop foofee ci Afrique du Sud. Mhm. mais mu géré. li ma ciy wax moom la keneen koo xam ne seq na ko moom mën a wax. en tout cas nit ku baax. Mhm. dimbali sport bu Sénégal ci ku ko jege ak ku ko jegewul mooy Joseph Koto. macha allah très bien yal na ko yàlla yërëm mhm. euh, témoignage du ministre des sports Matar Ba euh, sur ki nga xamante ni moom moo di Joseph Koto ci la ñuy àddu soxna fa ci la ñuy àddu mooy jëwriñ ju dénk wàllu tàggat yaram ni ma ko waxee sànq rek kàddu gi benn la baat bi benn la comme euh, ñu bari rek ci sportif yi ni ñu ko defee moo xam à travers ay communiqué wala ay tweet wala ci réaction monsieur Matar Ba lañ ciy teewlu. te ñu am naqar naqar bu rëy mooy euh, Joseph Koto bi yàlla moom moom ko ci anam bu bu gaaw mu nekkoon nag soldat ci réew mi nekkoon football kat waaye nekkoon nit entraîneur nekk modèle ci yar ak teggin moo tax bi mu amee ñu dem euh, ma ànd ak le ministre Abdoulaye Seydou Sow ak président fédération ak sportif yi ñu dem ci kër ga euh, gis soxna si gis ñi nga xamante ñooy mbokk yi pour présenter leen suñuy condoléances mais présenter leen condoléances président Macky Sall tout cas tey naqar gënu ko rëy sénégalais yëpp sa ngëm nañu surtout ñu nekk ci wàllu tàggat yaram waaye nag ngëm yàlla moom boo ko defee boo amee lu la métti lu neex da nga koy delloo suñu borom moo tax maa ngi ñaan ñëpp ñu muñ te ñaanal ko yàlla xare ko àjjana Aïcha di ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm ñu bamtuwaat ko rek ah, di massawu justement euh, tout le corps sportif euh, du Sénégal ah, yaakaar naa ni yéen ñëpp euh, ñun a ñàkk ku màgg ci Sénégal voilà ñëpp a ñàkk ci ay xibaar ñi ngi waxtaan ci seen biir ay mbokkam ak i jegeñaaleem ngir xam euh, kañ lañ koy inhumé ci sama kàddu le président Bougane Gueye Dany ak l' ensemble groupe des médias yëpp ñu ngi koy jaalee mbokkam i boppam ay mbokkam sportif ak le Sénégal yëpp ndaxte koto koto ñëpp la woon Asma Hadija. très bien ñu àddu ci la Ligue Pro qui reporte son symposium finalement. voilà dañ koy reporter parce que symposium bi euh, tey la waroon euh, door. ñu daal di wutali euh, dimanche euh, ñu bokkoon ci liñ fa waroon waxtaanee 12 ans wu ligue professionnelle bi xam nga football bi moom bu ci dekk euh, mbir amee day laal ñëpp moo tax ñu daal di reporté décès bi moo tax ñu daal di koy dàq ba jimmi jamono gannaaw bi nga xamee ne waxtaanee nañu ba noppi jëm ci wàllu woowu président Momar Lo merci ci xibaar boobee ngir li nga xam ne moo jëm ci symposium ligue professionnelle bi. Coupe CAF Jambar qui joue ce samedi. tout à fait ñaareelu bi ci lañu daal di toll gannaaw ba nga xamee ne Jambar. sax benn war wërngal la jotoon jongante moom équipe bu rek euh, guinéen boobu mu daal di koy daan marché aller rek lañ jotoon euh, jongante ndax jafe-jafe yaa amoon ca Guinée tey nag suba kon Iñimba équipe bu Nigéria la la war a rek euh, dajeel bu 17h jotee xibaar bi ci yees mooy kaaf autorisé na ci lu toll 2000 spectateurs maanaam public bi ubbi na aslëf ngir rek ñu daal di dugg si ngir mën a rek poussé équipe bu jàmbaar boobee nga xam ne mooy représenté Sénégal ci lu jëm wàllu coupe CAF. mi ngi noonu natation Oumou Diop qui est médaillée à son tour. mi ngi noonu euh, Oumou Diop euh, ñu fàttali rek ni Ligue des champions tamit Asma Hadija dina am ay jongante ki ci rek Oroya mi nga xam ne moom nga euh, foofee ca Mali stade Mali la war a dajeel ñoom nag danoo jàppoon ginnaaw bi nga xamee ne autorisé wuñu woon ñu daal di jongante seen dëkk ci Sénégal ñu amal fi seen match retour waaye xibaar yi mujj a jot mooy autorisé nañ leen ñu jongante foofu kon foofe la koy jongante tey ji la am Zulu FC ak TP Mazembe di ñëw ñu jongante laata ñu koy wéyal ëllëg le 16 wala 17 kon la ñuy continuer li nga xamante ni si moo jëm ci wàllu Ligue des champions boobee Euh, ñu waxtaanee rek laataa ñuy wax ci natation lu jëm euh, ci tirage au sort deuxième tour préliminaire additionnel coupe euh, de la confédération 2021 2022 dinañu amal tirage bi le 26 octobre bu 11h jotee ci siège CAF ca foofee ci Égypte ci noonee. source bu jege FIFA mi ngi xamle ni dañoo pour poursuivre lu jëm ci wàllu aide Covid 19 bu FIFA yi ba tax na benn programme de soutien toll ci 1,5 milliard USD dinañu ko daal di jox 211 associations yaa itam six confédérations yi ngir gën a atténuer lu jëm ci impact financier wu pandémie bi wax nga ko Asma Khadija natation la ñu daal di àddu Oumy Diop doomu Sénégal la moom dafa rek jël li nga xamante ni si mooy médaille. d'or ci Jeux africains yi am ca Ghana ci 100 mètres pavillon ak incroyable temps boo xam ne toll na